internationale. C'est l'info internationale. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu te wóor ci réew mi ak ci bitim réew. Seneinfo. internet yi ñuy bàyyi xel ci seneinfo point net ak seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fas yéene defal tënku a xibaar tey mardi di 20 décembre 2022 ñu tàmbali koog euh, xibaaru biir réew mi. Pape Alé Niang nag nga xam ne ay bés bi weesu rek euh, lañ ko bàyyi woon mu génn kaso moom nag dañ ko tegaat loxo euh, démb ñu ko amal nag euh, ñoom ñooy élément yu groupe de recherche et d'interpellation bu division des investigations criminelles ñu ne nag teg loxo boobu ñu ko teg loxo nag la ko waral daal ñu ne njort nañ ne ab déclaration mais kàddu yoo xam ne kon te ko yëkkati teg ko ci directeur bu police directeur général kon bu police nationale wante it Euh, li nga xam ne it waxoon na ci ab direct boo xam ne euh, activiste bii di Mola Morgan moo ko doon def moom moom Pape Alé Niang nag ba suba tey bii dina jàkkaarloog kii di juge bu deuxième cabinet. gendarmerie nationale ñoom nag xamle nañ ne euh, le 17 décembre bi ñu génn teg nañu loxo ki nga xam ne kon moom lañ jortu ne moom moo faatoon ab béykat fële ci dëkk ba ñuy wax Kirène ñoom gendarmerie nag gannaaw bi mbir mi amee dañoo amaloon ab enquête. dénk ko euh, li nga xam ne mooy section de recherche boobu Thiès ca biir loolu nag kon la ñu localiser ki nga xam ne kon moom lañ jortu ne moo def boobu leen mbir ci dëkk bu ñuy wax Saare Birane euh, nekk sax euh, ci benn kilomètre diggante frontière kon Sénégal ak Gambie ci département bu Bounkiling fa lañ ko tegee loxo. démb nag gannaaw bi nga xam ne ñu ngi doon amal ab conférence de presse waa groupe parlementaire liberté démocratie et changement ñoom nag xamle nañ. la tax euh, wootewuñu motion de censure euh, bi nga xam ne euh, kon waa Yewwi Askan Wi ñoom ñoo ko amaloon ñoom waa Wallu nag nee nañ daal ñoom Yewwi dañoo boobu boobule motion de censure te sax waxtaan nañ ci ak ñoom mu te ñu ne te nag ñoom nag ñu responsable lañ ñu am fula lañ te ñu ne ñu xam la ñuy def lañ te sax nee nañ loolu nga xam ne def nañ ko bañ a woote li nga xam ne moom mooy motion ba ñu ne nag amuñ ca benn complexe ñu ne ñoom daal kon ñu responsable lañ te kenn mënu leen def loo kon loo xam ne bëgguñu koo def. xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy ca Nigéria foofu nag euh, ca état bu Kaduna euh, dañ faa daal faat ay nit lu toll si ñaar fukk ay def ko ñaawteef nag ñoo ko def ñoo xam ne sax dañoo amoon yoroon ni ngànnaay kon ñoom ñoo duggoon ci boobule. état kon dañ koy état bu Kaduna nekk ci eh, nord bu Nigéria eh, ba ñu duggee ne kon def bi leen ñaawteef faat fa lu toll ci ñaar fukki nit foofu ne nag Kaduna bokku na ci eh, dëkk ya nga xam ne kon ñoom lafa daal def ko ñaawteef yooyu gën a sonal foofule ca Nigéria. xibaaru bitim réew it benn ponk lay doon ba sub tey bi nag ab tremblement ab tremblement de terre muy suuf su yëngu moom lañ nemmeeku fële ca géej yi nga xam ne kon géejug euh, États-Unis ca Californie fa ñuy wax côte nord kon bu Californie bu sukkandikoo nag ci ñi nga xam ne ñoom ñooy US Geological euh, Survey muy ñoo xam ne nag kon ñooy saytu daal wàllum euh, suuf yëngu yooyu ñu ne nag boobule suuf yëngu muy séisme jot na euh, laal euh, lu toll quarante kilomètres ci sud est quarante kilomètres kon ci sud ouest bi nga xam ne moom mooy euh, ville portière bu Eureka ñu ne wante nag amul nag benn alerte tsunami boo xam ne nag wax nañ ne tsunami moo nar am wala déet loolu daal amaguñ te kon xibaar. xibaaru tàggat yaram lañ koy eh, jeexale démb nag eh, ñi nga xam ne ñoom ñooy eh, waa Argentine ñibbi nañu seen réew gannaaw bi nga xam ne nag ñoom ñoo gagné lii di coupe du monde bi te doon ca football final ba ak waa France Lionel Messi ak ñañam nag ñu ne yegg nañ seen dëkk ca Argentine teetu ba nag amoon na solo lool lool lool bésub tey bi nag ñu war a wéyal boobu boobule teetu ak feet boo xam ne nag. danañ ko foofu foofule ca dëkk ba loolu sax tax ba mardi bi jour férié la ca Argentine loolu leen tey ci xibaar bu seen teewlu ñu jox daje ëllëg jaa ngeen jëf